mbokk yi lii wàllu noob la ba ñu waxee noob nag mooy tasxiir si wàllu diggante góor ak jigéen wala sax mu nekk koo xam ne bëgg nga mu jublu la jox la bopp jox la cër am mbëggeel ak cofeel si yow ndax dañoo toll si jamono joo xam ne bari na luñ koy faral di dégg mu nekk nag lu jafe jafe jafe ma leen di wax noob boo xoolee si wàllu ñaan noob bokk na lu ci gën a jafe xëcc nit mu dellu si si yow mag ñi ñoo ko daan def te mag ñi boo xoolee ñu ngi fi jógee dégg nga te ndaw ñu bëree bëri bëri yenn xam-xam yi jànguñ ko moo tax man lu si gën a bëri may wër di dem si kilifa yi si suñu maam ñi nga xam ne dañoo nekk si bëri bi fasantikoo di sàkku xam-xam si ñoom ndaxte man li may gën a jot si ay secret yu bëree bëri bëri bëri si mag ñi lay lay jógee mun naa wax ne sax li may liggéey si wàllu nopp bu dee téeméer la mun naa wax ne juróom-ñeent fukki yëpp ak juróom dara baaxu si wala dafay tane rek waaye yii nag dañoo dem gëstu ji ko fu soree sori sori xam ko ki ngeen gis nii xam ngeen mag la ñu dem fa sukk si kanam mu xam lañu ay mbir yu bëree bëri bëri jëm si wàllu diggante nga xam ne boo ko si defee jeex na ba ilaa yomi diin jeex na lii ngeen gis ni ñaari garab yu takkaloo la ñaari garab yoo xam ne den garab yu ñuy lekk doon waaye da leen fekk ñu takkaloo nii xam nga dañoo takkaloo amul benn sikk sàkk lii ku ko gis te am xam da nga xam ne ñaari garab yi nii nii ñaari garab yi bokkul la ñu booloo lu ñu booloo nii nga xas leen am luñ koy liggéeyee gis nga lii maa dem ba si àll bi di ko ut dégg nga am ñu boo xoolee ñaari garab yi sax niroowuñ am ñu koy liggéeyee suñ ko liggéeyee si kàttanu yàlla incha allahu taala ba jox ko doomi aadama bi bu fekkee ne ku góor la ku góor ki takk ko jigéen googu noonu mu ko def incha allahu rabbi ba ilaa yawmi diin dina ko déggal dina ko bëgg dina ko jox cër dina ko jublu bu dee ku jigéen nga ko defee itam ku jigéen kooku noonu tam la même chose waaye nag si farata lañ koy def luñ ko def si fi caaxaan luñ ko def itam si loo xam ne day neex nit ki. ñun duñu xool lu neex nit ñu koy defal dañuy xool li gën ak li baax loo xam ne dañ si am tuyaaba ndax ku ñuy ñaanlu chaque jour ñu ñëw di la dëkk ay ñaan bu dee wàllu kaaraange la am nañ ko bu dee wàllu ubbekaay la am nañ ko bu dee wàllu cat ak lamiñ nañ ko waaye nopp wala boole ay diggante wala delloo si nit la woon ginnaaw wala bëgg takk nit bëgg a ak moom yooyu ñoo xaw a jafe liggéey ko moo xaw a jafe moo tax ñuy dem fu sëree sëri di ko ut ut nañ ko nag ba yàlla dogal na alhamdulilah rabbil alamin am nañ ko ndax duñ tàyyi mukk si di ut xam-xam si bëri bu fasantikoo yi ni leen wax ne garab gii ni ngeen ko gisee nii man maa dem ba fam nekk ma gis ko xam fam ne nga xam ne man rek maa ko xam nag man ñii di waxee ak yéen xam naa ne yombut lu jafe la moom laa jël nii ut si xas mi parce que ñaari garab yi booloo yooyu laa jël ut si xas mi parce que ñaari garab yooyu kenn mënu leen tàqali kenn mënu leen tàqali bi laa yomi diin moom laa jël xas ko ñëw weer ko fi ma ne su boobee nag dama koy def sunguf moom lay liggéeyee li may liggéey su góor gi ñëwee di wax ma soxlaam ma liggéeyal ko ko jox ko bu jigéen gi ñuy wax ma soxlaam ma liggéeyal ko jox ko waaye si farata ndaxte ñi nga xamante ni ñoom laa si liggéeyal loolu lañ ma sant ñaari kilifa yi ngeen gis ni ñoom ñaar bokkuñ te ñoom ñaar ñëpp koo xam ne indil na ma liggéey boo xam ne def naa mu të si ñoom ñii laa koy indi ñoom ñoo ma koy liggéeyal am na si ay mbir yoo xam ne bëgg nañ ma ko jox waaye dafa am temps bu ñuy xaar pour man ma mën koo jox dama leen wax dëgg am na yoo xam ne mën naa ko am yoo xam ne mënuma ko waaye yi ma të nag si ñoom ñii laay ñëw ñu dimbale ma si waaye nag moom lu may leen wax rek dóor mu dal la dóor mu dal benn yoon ngay def jeex na la nga bëgg danga koy am bu la nit ki wanee ginnaaw dana dellu si soo bëggee nit bëgg la dana la bëggul lool ba mbir mi dem ba yëm la ba jaaxal la si wàllu diggante nag waaye farata kon képp koo xam ne na la rek mu ngi ñu yónnee message 76 605 63 19 buñ si déggooyee ba jokkoo bu mi leer ma lii lu wér la dëgg la mu si jubloo kattanu yàlla sa xol sedd ñu ngi yem fii asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu